ëllëg l'observateur ne ko mëñee kay jamono ji nag ña ngay seppi seeni loxo rek ci liggéey bi rek di fësal ñàkk déggoo gi nga xam ne rek dox na ci seen diggante kilifa yu Sénégal jëm ci wàññi gi ñu bëgg a indi ci njëgu mburu mi waral ba yëglekaay bi di l'observateur xëy bind ci xëtam bu njëkk ne état bi jamono ji am na mburu mu tàng ci ay loxoom ndax dalee ko niki tey jii ci altine ji nag lépp luy ay production yoo xam ne rek daan nañ ko amal ñoom mëñee yi dañu ko fas yéenee dakkal stock bi nga xam ne rek moom la boulanger yi di am nag mënta weesu lu dul ñetti fan tribune yëglekaay feelu ko ne état bu Sénégal ma ngay imposer ay njëgam nag mu toll ci fanweeri dërëm ci kilo mburu mi nag waaye boulanger yi ci jamono joojee nag di fësal seen ñàkk ànd ci bile dogal ñii di mëñee nag ñoo fas yéene soobu ci xeex bi ngir ñàkkante ko kii di Ousmane Sonko l'info yëglekaay ne fas yéene nañoo dakkal lépp luy ay production ginnaaw bi ñu xam ne ne état bu Sénégal daa fas wàññi njëgu farine bi yéene kaay bi ne mëñee kay jamono ji nag ña ngay défier état bu Sénégal ñoom ñoo ñee di xam le ci biir yëglekaay bi nag ne mënuñoo soobu ci ab liggéey boo xam ne rek ay man la leen di jural waral ba ñu ne tey ji yemook altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2024 daañu dakkal lépp luy ay production yoo xam ne rek daañu ko amal ba noppi leeral ci biir yëglekaay bi ne dogal gi ñu jël nag duñu ca dellu ginnaaw yootaa fileeg ne rek kilifa yu Sénégal dañoo teg taabal ji lu dal seenub xel bi di réew mi quotidien daal di dellu suwaat ci kàddu nga xam ne rek Mamar Ndaw daal dina koy yëkkati yi jëmale koo ci wàññite gi nga xam ne rek kilifa yu Sénégal indi nañu ko ci njëgu dund gi moom Mamar Ndaw mi nekkoon ganu grand oral ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne loi bi daal nañu ko appliquer dans toute sa rigueur yéenekaay yéenekaay beneen la ñuy àddu jëmale mu di Le Soleil mi xëyee tey ji nag lu jëm ci wàllu pétrole bu Sangomar ak lu jëm ci wàllu commercialisation bi nga xam ne rek daañu ko tàmbali ci digg weeru juillet yéenekaay bi nag ne jamono ji ñu ngi waaj a amal nag ay production annuelle yoo xam ne rek dina toll ci onze virgule sept millions ci wàllu baril pétrole brut bi ci atum deux mille dina toll ci volume quatre virgule trente quatre millions boo xam ne rek ci baril li ñuy destiné marché domestique bi lay doon faj yi andi nañu covid 19 ci réew Sénégal lu toll ci 20 pour cent jàpp cent pour cent la ñu nemmeeku ci ay cas de covid ci ñi nga xam ne rek ñoo di ujaaj yi l'observateur na aji màkkaatum 2024 bi ñii di ujaaj yi kay nag boole nañu covid 19 bi ci seeni bagage ba dugal ko fii ci réewu Sénégal lii quotidien ne ko lim bu takku ci ay ujaaj jamono ji nag test nañu leen ñu daal di positif ministre bi ñu dénk wàllu wir gi yaram fi mu toll nii nag mi ngi dalal xelu askanu Sénégal ne lépp luy ay matukaay daañu ko jël nag ngir covid bi bañ a law fii ci réewu Sénégal ci biir bi ña ngay xam ne ni lim bi ko amee mënee ñu ko wax jamono ji nag waaye bu ñu defee seenub liggéey ba noppi nag daañu amal ab communiqué officiel ngir jébbal ko askan wi ñoom nag ña ngay xam ne ni daal mbir yi mi ngi feeñ ginnaaw bi ñu gisee ne nag ujaa ji faatu dañoo amoon jafe-jafey nooy yi bés bi le jour xëy àddu jëmale tey ji ci wàllu politique muy Pastef APR ak yeneeni parti politique kii di amadu Ba fas yéene naa taxaw jamono ji nag ngir jàkkaarloo ak ñoom Le Quotidien yëglekaay xëyee niki tey ji nag ci jaar gi nga xam ne moom la élimaanu jëwriñ bu Sénégal war a jaar foofee ca pencu ndaw réew ma ngir ab déclaration politique général yéene kaay bi ne bëri na ay hypothèse yu ca nekk ndax ñi di député yi nag ñu ba seeti juróom-ñaari sages yi ngir Ousmane Sonko dikk foofee ca assemblée nationale Adji Mbergane Kanouté mise vice présidente bu groupe Benno Bokk Yaakaar ma ngay xam ne ni loolee obligatoire la enquête yëglekaay defub gëstu tey ji nag ci journaliste yi nga xam ne rek dañoo mujjee doon ay politiciens fii ci réew Sénégal ana mbir yàgg fu mu tàmbalee ba fu mu yem yër leen boobee yëglekaay tàggat yaram la ñuy àddu jëmale ak ay say Sarr mag ñuy xamal ne président bu club boobee di Amara Traoré tekki na nombal tànkam àddu jëmale ak stade quotidien moom dellu soir na ci Copa America bi ginnaaw Argentine ñoo ngi xaar waa Brésil tey jii ci ngoon lu jëm ci euro 2024 bi tey jii ci ngoon it diggante Italie ak Croatie nag jongante bu ñëpp di xaar jeexaleeg lu doy waar li nga xam ne rek moo xew ca diwaan bu Kaolack mu di ab càcc gu doy waar gu ñu fa doon amal ba mujjee ci bakkan bu faatu yéenekaay bi ne mbir yaa ngi xewee woon ca Medina Baye ay defkatu ñaawteef yoo xam ne rek ñoo doon amal ab cambriolage